wala du faciliter la tâche à son successeur tey jii et pour euh, déjà réew mi fi mu toll tout est urgence suñu tolloo ci jamono ji nga xam te ne on commence à vider les caisses ak yooyu est-ce que cela peut nous mener et également est-ce que tey ki nga xam te ne moom moo ñëw également comment il va faire pour rectifier déjà waaw merci Awa xam nga man dama jàpp ne hmm, pratique bi ngay wax noonu euh, daanaka du lu bees sax ak le pouvoir du président Macky du président sortant Macky Sall puisque euh, bu yàggul jàpp deux mille vingt deux mille vingt et am na benn directeur am bu nekkoon port. Mhm. bañ ñu ko fa jëlee di ko yóbbu feneen avant muy dem signé na une dizaine fo non des dizaines de contrats yi une clientèle politique avant muy dem. donc nga jàpp ne buñ la waxee ne comme li Dame Mbodj expliqué sànq que Cheikh Oumar Anne moo def loolu nga gis ne euh, Cheikh Oumar Anne mooy directeur biñ naan daan na jënd kilo ñebe 4000 ñu ne la mooy directeur bi nga xamante ni OFNAC bi mu ko audité dane kii waratu la jege xaalis bu ñëpp bokk mu nekkoon directeur sa jamono jooja président Macky Sall au lieu que mu sanctionné ko négativement comme ni ko waa OFNAC waxee. da ko promouvoir dolli ko ay ndombal tànk. donc kooku bu ñëwee def lu mel nii yaakaar naa ne warul bett sénégalais yi bañ ci alarmé wu man nag lenn moom ma xaw a euh, euh, jaaxal dama jàppoon ne président euh, sortant Macky Sall normalotaan dafa retrouver woon la normalité maanaam dafa demoon ba normal. Euh, may toog sax di euh, waxtaan ak sama xarit yi di naan leen euh, dafa mel ni comme si dañ ko pikiir mu teguwaat ci yoon mhm. ba émission yi nga xamante ni am na fi bu yàggul ma doon rafetlu visite de courtoisie yi bu mu permettre à Bassirou Diomaye fay fële ca présidence de la République ma jàpp ne geste bu rafet la que quand bu nekkee ne moom day dem ki nga xamante ni moo ko war a wuutu euh, xam nañ kañ la koy wuutu xam nañ moom mooy kan euh, euh, ce serait très quand même élégant mu woo ko ñu daje fële ca présidence fu mu ko war a wuutu ñu waxtaan au lieu que ñuy daje le deux bi nga xamante ni ci la Bassirou Diomaye fay war a jël lenge yi mm-hmm. malheureusement lu ñu gis mooy élégance boobu daanaka ay heure la am teguñu si dara ñu ne signé nañ tel décret signé nañ tel décret ñeneen ñi nga xamante ni ànd nañu ak moom tamit di def comme moom puisque bu nekkoon ne dafa tegu ci yoon au moins mu wone ne fi mu ne nii kat damay dem yéen ñi nga xamante ne nii yéen a ma wër yéen laay collaborer y a un nouveau pouvoir qui arrive prenez responsabilité ba pare moom mu tegu ci yoon ba jàpp naa ne du ñu toog bay constater comme ni ñu ko waxee nii Euh, euh, euh, ci enseignement bi fële ca Sonacos ñu ngi may envoyé également ay ay ay ay ay ay kii yoo xamante ni directeur bi moo ko fa signé yokk fa affaire yoo xamante nii teguwul fenn ci yoon ak yu bëree bëree bëri yoo xamante ni def nañ ko ba tax dàmbooj di wax ne. décret boobu ngay wax moo nekk nii. mangoog. décret baa ngi nii. c'est un décret la. c'est une décision c'est une décision waaw tout à fait. décision numéro. 002 24 euh, boo xam ni euh, euh, ci ci ci tappale yu leer la ko directeur général bi signé mais def lu leen neex def seen i nomination pour yokk yokkal ñin bëgg a yokkal def lu leen neex décret baa ngi nii donc gis nga lii Macky Sall ak ñim àndal ñoo la gën a xam ni lii dañ ko def pour saboter saboote nag taxul président Bassirou Diomaye Faye ñu mën koo tugal ci ndëgg sërëx gis nga sénégalais yi. d'accord ñoo décidé seen daa may ko mu continuer <laughs> voilà donc je voulais rek juste dire que ñun lim def yëpp on a on a tout enregistré te jàpp nañ ni lim def yëpp nee lañ koy tege incha allah après la deux ba noppi gouverneur dëkk bi teg ko ci yoon. xam nga xam nga li doy mooy da nga dem ba tëkkale li pouvoir bi di def à la politique de la terre brûlée. Mhm. te loolu buy am ennemi lay doon boo xamante ni mu ngi lay envahir. nga xamante ni yow amoo beneen obli euh, euh, euh, comment dire solution bu dul battre en retraite nga ne balaa maa baat en retraite au lieu ma fi bàyyi yoo xamante ne nii kii ñëw dina ko mën a jëfandikoo mhm. bàyyil ma yàqu ko mhm. mais boobu guerre la mhm. instant yi nii il s'agit de politique de transmission du pouvoir ci élection yoo xamante ne nii dañu ko def mais sénégalais yi ak adduna bi yëpp rafetlu ko donc je pense que président Macky Sall warul a génn quand ci yoon bi nga xamante ne ni nekkoon na ci te mu commencé par euh, euh, maanaam li ci gën a rafet di ba mu recevoir Bassirou jomaay ak soon Sonko fële ci présidence de la République mm-hmm. pour man ci dynamique boobu la waroon continuer puisque lii xew ni da ciy gën a ñaaw rek am na benn salon d'honneur fii euh, ñu invité woon l'ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye mm-hmm. ma koy laaj décret bu Abdoulaye Wade signé woon le 23 avril non le 23 février 2011. à deux jours de la présidentielle. est-ce que moom daf ko contre contresigné woon. mu taxaw mu ne yëgu ko. parce que décret boobu lu mu doon def mooy joxe une quatrième licence de téléphonie au Sénégal Abdoulaye Wade moo ko def à deux jours de son départ. Mmh. mais ba mu ko defee kan moo ci perte entreprise bi nga xamante ni moom lañ joxoon marché bi. puisque Macky Sall bu mu yegsee décret yu mu njëkk a signé bokk na ci abrogé décret boobu nga xamante ni Abdoulaye Wade jëloon na ko pour joxe marché boobu mhm. ce qui veut dire que moom ci boppam xam na ne ak ñi mu àndal lépp loo xamante ni mun nañ ko fi def ci ay décret ci ay nomination ci ay signature pouvoir bii di ñëw après mun na ci dellu siwaat lenn kay xam naa ne moom peut-être du ñu ko mën. mooy ña ñu décorer moom doo mën a dem. nangu décoration boobu moom xam naa ne. ñu ñu may ay oto <laughs> raw na leen ñoom ñoom Mbaye Dièye Faye moom di ngeen leen di bàyyi ak seen i seen ordre ordre national du lion. yooyu sax la war a changer ci réew mi maa xadi. Euh, bu fekkee ne. Euh, question amul waaw euh, parce que man dama bëggoon ñëw ci li nga xam ne nii mooy politique. bu fekkee ne amul. xaaral kon ñu terminer élaguer sujet yi doog ñëw ci côté boobu. Ayoba ñu ñëw ci yow euh, par rapport ak euh, li nga xamante ne déjà mi ngi am ñu gis ko ñëpp jàpp ne du faciliter la tâche wala d'entrée de jeu rek ñu tegal la ndëgg sarax le nouveau président élu également. bon ni ko maam Birame waxee léegi ay décret loo xamante ni ñu ko signé ci benn période boo xamante ni euh, c'est un c'est une période assez particulière quand boo xamante ni nit ñi sénégalais yi choisir nañ ba pare. Mm-hmm. c'est-à-dire au moment où nous parlons euh, Bassirou Diomaye Faye a été choisi par les sénégalais pour nous diriger durant les cinq prochaines années. Mm-hmm. léegi nag comme ki nga xamante ni moom moo koy jox lenge yi n'a pas assez d'élégance pour vraiment euh, respecter une certaine orthodoxie républicaine. Euh, moom bu ñëwee li muy def rek comme ni ko maam Birame wàcc rek day signé ay décret pour abroger yi nga xamante ni euh, signé nañ ko te teguñu ko ci teguñu ko ci teguñu ko ci yoon je pense que loolu peut-être du am un peu trop de problème à ce à ce à niveau maintenant nag euh, daam wax na lu am solo mooy ñenn ñi nga xamante ni recruter nañ leen ci ci ci ci yenn place yi fonction publique peut-être président bu ñëwee abroger décret yooyu Euh, dina indi ay temps tension mhm. ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu euh, kiiwaat euh, nu mu tuddati mouvement social bi ñii nii jóg peut-être pour pour pour pour créer waat benn front social mais bon en tout état de cause loolu pour man mënul mënul doon excuse pour que ñu ñu ñu alimenter alimenter front social bi parce que président bi nu mu tuddati day doog a commencer donc suba lay jël suba lay suba lay prêter serment Euh, et puis euh, semaine bi ci topp lay doog a lay doog a lay doog a commencé lay doog a commencé doxal euh, maintenant pour pour pour pour prestation de serment bi suba Dame a raison c' est le régime en place qui organise. Mhm. ñoom ñooy organiser affaire yi. c'est-à-dire Bassirou Diomaye dañ koy consulter rek peut-être pour wax ko. Mhm. yëf yi ni lañ ko jàppee ni lañ ko ni lañ ko ni mhm. lañ ko ni lañ ko tëree parce que man mii sax jokkoo naa ak ñi nga xamante ni ñooy. ñooy waa Palais barki démb. Euh, pour affaire euh, badge yi nga xamante ni ñoo war a jëm fële ci kii ba. ils m'ont mhm. fait savoir que ñoom ñooy ñoom ñooy affaire yi ñoom ñooy joxe euh, badge yeeg yooyu noonu pour pour ñi nga xamante ni ñoo ko donc c' est c' est le palais qui c' est le palais qui organise. ñi nga xamante <coughs> ñëpp ñi nga xamante ni nag. peut-être amuñu fa accès suba du du ñi nga xamante mooy coalition Diomaye président parce qu'il n'organise pas c'est c'est c'est le palais qui organise mhm. donc demee nag li xamante ni peut-être moo moo war a am programme bi peut-être mun nañ ci mun nañ ci mun nañ ci ñëw pour ñi nga xamante ni xamuñu Euh, programme bi ni mu tëddee euh, nii lay nii lay nii lay nii lay tëddee donc euh, nii lañ ko tëralee en tout cas selon le conseil constitutionnel qui a qui a sorti un communiqué pour ça huit heures ba dix heures accueil des invités au centre international de conférence Abdou Diouf huit heures dix heures accueil des invités neuf heures neuf heures trente arrivée des membres du conseil constitutionnel 9h30 ba 10h30 arrivée du des chefs d'État du gouvernement ñi nga xamante ni ñoom lañu ñu. ñoom la ñu invité ci ñoom lañu ñu invité ci bis bi. à 10h40 nag euh, ci la Bassirou Diomaye fay di ñëw président Bassirou Diomaye Faye c'est le président élu euh, prévoir nañu donc arrivée am à 10h h après l'accueil euh, il il sera accueilli par les membres du conseil constitutionnel après ñu installé ko ci salon d'attente bi mu xaar ba 11h euh, ci le maître de cérémonie bi di annoncer le programme. après arrivée des membres du conseil constitutionnel dans la salle après 11 h le président du conseil constitutionnel ouvre la séance et demande au chef de greffe euh, de lire la décision proclamant les résultats officiels yi nga xamante ni moom la mhm. conseil constitutionnel mhm. euh, daa di daa di daa di proclamer léegi bu defee 11 h nag ci ci la arrivée et installation du président Bassirou Diomaye Faye dans la salle 11 heures 11 heures parce que diggante boobu yëpp dafay nekk ci salle d'attente bi di xaar ñu installé ko ci ci li nga xamante ni mooy salle bi. Mhm. à 11 heures 25 léegi ci le président du conseil constitutionnel muy euh, Mamadou Badio Camara di tenir son discours euh, vraiment euh, bu teniree ba pare ça va durer à peu près ay 20 minutes 15 minutes après à 11 quarante 40 maintenant si la prestation. de serment bi nag di di di di am prestation de serment bi damay rappeler toujours que ni c'est sur la sur sur la base de l'article 37 euh, la constitution moom moo ko en tout cas moom moo ko ëmb mhm. euh, ci lim ciy wax euh, moom yi ko fii wutu comme ni ko daam yëpp waxee sànq mooy devant Dieu et devant la nation sénégalaise je jure d'observer comme de faire observer scrupuleusement <coughs> les dispositions la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation euh, de l'unité africaine. Donc su loolu weesoo après à 11h25 donc c'est le discours euh, de, de, euh, à 11h45 plutôt c'est c'est le président du Conseil constitutionnel 11h40 euh, discours du président élu parce que président conseil constitutionnel bu defee discours ba pare. bu kii prêter serment après président Bassirou Diomaye Faye si lay doog a def premier discours am en tant que président investi. donc si lay def discours à 11h40 après à 11h45 donc euh, le président du conseil constitutionnel lève la séance et après le président élu reçoit les félicitations des voilà des invités après nag ci lay jël oto. wala mu jël train express euh, euh, régional bi comme comme ni ñu ko annoncé. après jubal euh, palais mi nga xamante ni nag bu eggee foofu waxtaan ak Macky Sall ñu tëju ñoom ñaar ci saal Macky Sall ni mooy caabi yi daal koy jox. donc Macky Sall ne sera pas présent à Diamniadio. non il ne sera pas présent il l'attendra comme en 2012 Abdoulaye Wade avait attendu mm. bu ni mooy conseil constitutionnel ko fa Abdoulaye Wade jox ko caabi. donc suba noonu lay demee Bassirou Diomaye fi bu ñëwee Macky Sall waxtaan ak moom ñu mm-hmm. ci paree après mu jox ko caabi Bassirou gungee ko. mu génn palais bi foofu def naa dina am benn e ci biti comme en 2012 en tout cas. diri bi il y comme en 2012 en tout cas il y y lieu je pense que suba dina amaat loolu. parce que en 2012 mm. je me rappelle j'ai couvert cet événement là bi nga xamante ni Wade mi ngi ci. je l'avais couvert pour Walf Grand Place wadd mi ngi woon ci biir palais bi ak Macky Sall ñu tëju y avait beaucoup de monde mm-hmm. dehors mm-hmm. Mm-hmm. parce que contexte bi ñu organisé woon élection bi moo tax y avait beaucoup de tension avant cette troisième mandat et bi Wade di génn y avait y avait vraiment y avait vraiment un spectacle assez déroutant mm-hmm. déroutant parce que doo xam ndax nit ñi dañ ko doon applaudir doo xam ndax nit ñi dañ ko doon yuuxoo mm-hmm. donc euh, c'était des c'était des clients entrepelés di tàccu ñi di wuwu après y doo xam ban ban sentiment moo doon animer mais ma ci gën loolu du man li ma ci gënoon a frappé à l'époque en tant que jeune reporter mm-hmm. et cette image mais mais restée dans dans la mémoire parce que bi waat di génn nit ñi di ko yuuxoo ñi di ko tàccu après am benn góor bu benn Euh, mag bu taxawoon ci wetu gris yi noonu dafa mel ni xaw ma lan moo ñu boole <coughs> ma ñëw ba ci moom porté moo gilet de presse comme mu ñëw j'avais le visage grave après ma ma ma ma ma ma mu xam na ne xam naa dafa jàpp ni kii journaliste parce que gis na sama gilet bi mu ne ma sama doom ma ne ko ah mu ne ma li ngeen def nii tey di koo ko rëccu di ngeen màtt seen baaraam te di ngeen wiccax ne ko ah mu ma waaw nañ dem yàlla nañ dem yàlla dina leen won mais li ngeen def nii tey ngeen màtt seen baaraam wiccax vrai ci loolu loolu ça m'est ça m'est surtout bi ñu commencé traverser événement yi nga xamante moom lañ traversé sous Macky Sall revenu euh, dans la mémoire donc demain hmm. spectacle boobu à peu près moo nar a am diggante euh, centre de ba palais on espère que demain avenue de la République du vivre lu ñu vivroon en 2012 dinañu euh, ak dinañ ko dinañ ko